dal leen ak jàmm mbokk internet yi Aby Ndour mi defoon ab vidéo bataaxal di ci joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ni moom mooy Pierre Goudiaby Atepa di wax ne daf ko doon sàkku di ko menacer moom itam jot na tontu bataaxal bu jógee ko ci ki nga xamante ne moom mooy Pierre Goudiaby Atepa ndax mi ngi ko naan Aby Ndour tooñ nga ma ci kaw ab vidéo bu gàtt bu mu amal ci altine jii ni Pierre Goudiaby Atepa ma nga cay jox ki nga xamante ne mooy Aby Ndour ab tontu bu njëkk bàyyee ko ci la mu ko jiñ ci kanamu sénégalais yépp la mu ca njëkk a xamle mooy ki nga xamante ne moom mooy Aby Ndour la mu wax yépp ci moom dara du ci dëgg teg ce ki nga xamante ne moom mooy Pierre Goudiaby Atepa nee na itam màggaay ak dooley xarala yu bees yi maanaam l'internet tax na ba mu neex di ko jëfandikoo di ca wax la loo neex loo xamante ne nii daanaka benn dandu la ci fekk Pierre Goudiaby Atepa weddi na waxi Aby Ndour ya ànd ak loolu naqarlu ko lool ci fàttali ci ab vidéo bu mu amaloon ci page Facebook am Aby doon na ci joxoñ ay baaraamu tuuma ki nga xamante ne moom mooy Pierre Goudiaby Atepa nan daf ko doon chantage nan ko soo tëddulu ak man dinaa la yàqal sa liggéey ginnaaw si nga xamante ne jotoon na ko dig alal ju bari ngir ànd ak moom abi Ndour daal di bañ woykatu bu jigéenu Ndourène Diine di rakk ki nga xamante ne moom mooy Youssou Ndour di xamle ba tey ci boobule vidéo ni ki nga xamante ne moom mooy Pierre Goudiaby Atépa daf ko doon sàkk ak naroon ko saay-saaye bañ gu mu bañ waral na ki nga xamante ne moom mooy Pierre Goudiaby Atépa doon ko xoqatal ak di ko def ay mbir yoo xamante ne naroon na yàq liggéeyam